caat dundal ayca ñu koy door ak yéen kaay groupe euh, des médias euh, mu mel ni nag euh, li ñu dikk li mu dikk moo di procureur ak nag juge yi nga xam ne jamono ji ñu ngi ci ay dossier jëm ci mbiri Pape Alé Niang Sonatel dugal nañ ko ci mettre nañ ko contribution ngir mën a tracer yenn ci ay appel ay arrestation yi nga xam ne njortees nañu ko kon nag enquête bi mu ngay gën di avancer si mbiru Pape Alé mi nga xam ne ñu ngi ko téye nii ba léegi te taskatu xibaar yi di sàkku ñu génne ko ndax du foofu du place am te bu mu bett kenn fan yi di ñëw bu ñu amee bu ñu euh, jotee ay xibaar ni am na ñu ci teg loxo ndax waa Sonatel ñu ngi ci ñoom it dugal nañ leen ci dossier bi ngir ñu jàpp ci liggéey bi. beneen xibaar bu nga xam ne démb la wàcc euh, ki nga xam ne moo di Qatar bu Karim Meïssa Wade ma nga xam ne fa la gàddaayoon dem toog fa 2016 ba léegi bu mu bett kenn nag moom it bu ñu jékki-jékkee rek gis ku wàcc AIBD. Euh, doon Karim Meïssa Wade di daaguwaat fii ci réewum Sénégal ndax nag euh, xibaar bi nga xam ne joxe nañu ko moo di jotaat na passeport am visa wam ngir mën a dikkaat ci diwaanu Ndakaaru laaj bi nag daal di samp ci bi nee ndax beneen dil la bu ñu tegati ci ndoddu askan bi ndax nag dafa amoon ay mbir yu ñu ko jàppoon ñu ne deetuwaay ñu jékki-jékki gis ko mu gàddaay te kenn xamul lan moo tax mu gàddaay jékki-jékki tamit ñu ne jox nañ ko passeport am ani lan moo tax ñu jox ko passeport am fan yi nee nañu ay médiation ñu ngi ko doon amal ci tànk bi nga xam ne coupe du monde bi ngay door en tout cas bu fekkee information boobu c'est avéré an lan moo war a mu jotaat passeport am ani fu ñu ko jaar ñanaax ñan ñoo waxtaan ci mbir mi li ñu ko doon toppee xanaa kon kon dara amu ci ndax mbiru politique la ay ay point d'interrogation yi nga xam ne kaay bi ah, samp na ko ci mbiri Karim ah, Meïssa Wade waa ji ñuy woowee Cheikh Ahmed Cissé dañu ko nag placé en garde à vue gannaaw ba ñu ko dégloo démb ca division spéciale cybercriminalité waa Jamra ñoo ko porté woon plainte en tout cas euh, dañu ko téye ji pour le moment moom Cheikh Ahmed Cissé ci ay kàddu yu nga xam ne jot na ko yëkkati keneen ku jàkkaarloo taskatu xibaar yi démb moo di ministre bu tourisme Mame Mbaye Niang loisir moom responsable politique bi sax laay wax maam bay Niang dafa jàkkaarloo euh, démb taskatu xibaar yi donc sa tontu Ousmane Sonko mu ngi koy xamal ne yow mii di wax ne dañ ab rapport dafa am ci man jëm ci rapport yu e. li ngay wax dara tegoo ko fenn te amoo ci lu wér masul am rapport bi UG e bu nga xam ne nii wax na ci mbiru euh, Prodac mbiru vingt neuf milliards yi te nag porte naa la plainte moom Ous euh, Mame Mbaye Niang porté na plainte Ousmane Sonko euh, ci mu procureur ngir moom it mu andi ay preuve sa la mu wax ne rapport UG e bi dafa joxoñ baaraam kii di Mame Mbaye Niang jëm ci vingt neuf milliards Prodac Assemblée nationale démb dañoo amoon gan gan gi moo di jëwriñ bi ñu dénk wàllum wér-gu-yaram Marie Xemes Euh, budget nag daanaka euh, ñu ngi ko xayma ci cinq cent quinze milliards suñuy koppar yoo xam ne tegal nañu ko ngir wàllu wér-gu-yaram bi lépp mucc ay fii ci réewum euh, Sénégal loolu nag moom démb la woon sa assemblée nationale ñu waxtaanee ko laas quotidien démb nag conseil des ministres président Macky Sall teg na stable ji nee na yi nga xam ne yëpp mu ngay direeku dossiers yi nga xam ne yéex na lool dossiers yi nga xam ne mu ngay traîner yooyu la bëgg ñu daal di koy génne daal di koy accélérer liggéey bi daal di mat sa na mu laata at mi di décembre deux mille euh, euh, euh, vingt deux bi ñu ne bokk na ci ubbiwaat wala sax ñu ubbi université Amadou Mahtar Mbow nee na loolu sa la bokk lu jàmp la te dafa war a gaaw également poste kër gi di poste nee na na gaa nañu ko gaaw tëggaat ko defaraat ko yekkaat ko laata fin ne laata decembre deux mille vingt deux bii di wees président Macky Sall loolu la bëgg ba noppi it ñu gën a taxaw waay laa koy loolu tam bokk na ci dossiers yi nga xam ne bëgg na ñu taxaw si si. mu gën a am na élément ci journal bi. ah am na élément ci journal ay mbiram. Hmm. non même bu ci am lu dinañ ci waxtaan. loolu moom dinañ ci ñëw. na sa xel daal il faut ñu ñu waxtaan ci. Euh, le vrai journal dafa ñëw euh, ci euh, kii di Khalifa Sall ah Khalifa nee nañ nag moom mooy jiite coalition Yewwi seen coalition boobu nee nag mandaawam jeex na moom ci boppam waroon na abale bu yàgg ci bopp coalition boobu. faaw nag assemblée générale am ñu jël keneen teg fi année la moo tax kon ñu fàtte ko ba léegi moom euh, Khalifa saal en tout cas yéenekaay bi dikk na si def na ci ak taxaw seetlu disparition mystérieuse des deux RG mooy ñaar ñi nga xam ne dañoo réer andi kan andi ñan ñoo am intérêt ci jël dossier boobu bëgg koo jege ñaaleex dossier Pape Alé yenekaay bi point d'interrogation boobu la laaj ani lan moo waral ñu bëgg jël rek mbir moomee bëgg ne kon dafa laaleef mbiru Pape Alé laaj boobu le vrai journal def le vrai journal ñëw euh, ci fantasy ro fasanteeg sikkim nga amoon démb accrochage dañu ko ci diggante l'armée bi ak ñenn ñu wax ne ci fippuy Casamance yu MFDC la bokk baa du mbiru toolu yàmbaa yi démb mm. l'info affaire vingt milliards yu Prodac yi démb Mame Mbaye def cee tontu euh, nee na dëkkab dóore koy tas euh, te Ousmane Sonko daf ko da da daf koo joxoñ baaraam moom mu fas yéenee xaj ci dóor nee na nag porté naa plainte moom euh, Mame Mbaye Niang porté naa plainte ci kanam procureur kii di Ousmane Sonko ngir mu prouver accusation yi mu teg sama ndodd accusation yi moo di moom Ousmane Sonko dafa wax ne euh, rapport euh, IGE dafa joxoñ baaraam kii di Mame ñaar ci vingt neuf milliards Prodac moom nee na masul am rapport inspection général d'État maanaam IGE jëm ci Prodac bu nga xam ne daf koy joxoñ baaraam moom Mame Mbaye Niang moom moo wax loolu donc nee na bi rumeur yi amee coow li bari moom ci boppam daf ko jaral mu tekki ndoom ba tànkam. Hmm. ngir mën ñu mën koo déglu. nee na nag le 10 juin 2018. ah. le 10 juin 2018. mu tekki ndoom ba tànkam. nee na loolu bu ñu ko fàtte loolu la l'évidence ñëwaat Mame Mbaye Niang euh, ministre du tourisme 29 milliards yu euh, euh, Prodac yi démb tontu na si ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko ñu ñëw ci vingt 24 heures Japon. Euh, les samouraïs bleus renversent donc euh, lan ñu ngi koy liiree nii. <laughs> ñoo daan ñoo daan Allemagne. Hmm? ñoo daan Allemagne. waaw <laughs> Japon. ñoo dóor Allemagne démb. ñaari bal ci benn ah. dama ko seetaanu démb. <laughs> démb seetaanu ma match. dafa bëri surprise. Argentine tamit Arabie Saoudite. ah Arabie waaw. non boobu ba pare ba pare maye férié démb dëkk ba. non yooyu kat ku dóor Argentine doo maye férié. ok ku dóor Argentine. ok doo doo maye férié. yow fekk nga war a maye sax. seen supporter bi sax. HB baax HB baax. naan nañu géej gi naan nañu. naan nañu géej gi naan nañu géej gi. naan nañu géej gi alors ñu jàll ci l'observateur l'observateur dafa ñëw ci disparition mystérieuse ak révélation yi nga xam ne jot nañu ko am ci ñaari euh, militaires yi la marine nationale nee nañu jot nañu repêché benn corps fii marine nationale lañ jox repêche un corps alors que nee benn nappkat la moom moo repêché corps bi lu mu ci manti doon yéenekaay bi nee na la marine nationale repêche un corps en cours d'identification ñi ngi nekk nag di identifier xool ndax néew boobu ñu gis ndax néew kenn ci ñaar ñi jigéen ñaare ñaar ñi nag nee nañu Euh, dañoo lap moom nañ ko dindi dañ doon jéem a ko ba lap loolu moom bi yeboo ñu dindi ko ci xel xeli askan wi loolu mante ne mbiru Sitor euh, Ndour euh, am na lu yees bu ci am moom ancien directeur général bu COUD dañu ko génne ci cellule am yóbbuwaat ko ca këram lu mu ci man ci doon di jàpp ne lépp lu soxal wàllu darab kilote ak yenn ci ay objets yu nga xam ne nee nañu dafa xaw a taxe ci viol bi ñu ko tuumaal yëpp jël nañu ko téye moom Sitor Ndour yéen kaay foofu la dikk na ci Pape Abdou Cissé ma nga xam ne euh, ay débéem jaar jaaram. lan moo tax xeetu def yi bu ñu koy def ak nit. Mm-hmm. lu koy egg ci presse bi. yegg nañ ko ci presse bi fi muy jóge ci cellule bi ak fi muy egg ci këram. ci koo xam ne sénégalais la. nekk gor nekk jullit. am dëkk fi nekk citoyen lan mooy sennal xibaar yooyu. Mm-hmm. ñun on a un problème boo xam ne doy waar la ñuy sàggane problème kii kii ak lu ñu ko kii ak lu ñu ko mën di ay darab ay kilo mën di toppee lu ñu ko mën di toppee am na ci yoon fu ko yoon mën a setalee ba léegi am na ci wàllu médecin docteur foo xam ne am na fu mu ko setalee donc ba léegi ci ay accusation la ñu nekk waaw bu ñuy wut yeneen i firnde yuy weddi yuy weddi rapport bi ko setal di wutiwaat mm-hmm. yeneen i firnde diggante boobu lu ko senn ba média jot yi te muy bàyyi jàmm nekk ci dëkk bi bàyyi jàmm nañ waxante dëgg rek bàyyi jàmm. non dëkk bi dëkk bi nag dëkk bi dañu bëgg a di xaw bi sutura nit mënuñoo am sutura. mënuñoo am sutura benn yoon. balaa ñuy am lu leen neex rek tegal ci taamu bi ay talaso ay kaliso ay kalaso lu ci yoonu loolu lu mu ciy wax. non c'est ah, terrible ci diggante Céline ak ak ak kër ga. lu ko jot lu ko lu ñu ko jottali ñun. te lu bon de lu ñu ciy jottali ñun xibaar. du ñu wax lu baax boo waxee lu baax sax nit ñu ne ay dóor la. Ah, Sénégal c'est vraiment bizarre mais loolu la. c'est vraiment dommage pour wan la ne yàqute gi fu mu yegg boo saagaan nit loolu mooy wéy génn nga léegi boo waxee mooy ñi di saaga waaw ñi nga xam ne leen neex wax pour ñoom yëg ñoo ñooy ak saaga yow ngay wax lu correct sax ñu jël la teg la si table lay dogot dogot dogot ba nga tas dafa ñaaw quoi dafa ñaaw ñi seenal xibaar yi moom war nañu koo bàyyi moom doy na wax de Pape xam nga ne kon si équipe nationale bi la bokk ay jaar jaaram ba mu daan jaay fëgg jaay ba mu daan dem marché syndicat di ko ñafe di ut si yenn xeetu fruits man cee am dara mango yeeg. Euh, xaal yu nëb yi waaw xaal yu nëb yeeg yooyu dóor waar loolu képp ku dëkk banlieue xam nga loolu. xaal yu nëb kon ak <laughs> <laughs> ko Ahmed Aïdara ak ñoom Malick Gakou oui laaj ko ñoom Ahmed Aïdara ak Malick Gakou président Lamine Gueye xam na dem syndicat uti mango yu nëpp mooy burubara bi xam nga burubara xam nga maa nga jël <laughs> jotaan na nekk basketteur ak yooyu yëpp alors euh, yéen kaay bi dikk na si les échos dafa ñëw euh, ci euh, Abdou Diallo ma nga xam ne dellu si waat na waaye Bala Touré nee na fu mu nekk moom rek mooy entraîner moom dafa nekk seul fu mu nekk ci wàllum entraînement bi mbirum braquage yi nga xam ne dañu ko nemmeeku jamono jii nga xam ne nguurug Sénégal nag def na kéem kattanam taxaw ngir Samba Boy ñu daal leen di téye ndax nag ni ñuy dicté seen i loi kenn mënu ko bàyyi mu continuer non non réew mi réewum loi la suuf euh, soi ñëw ci euh, mbirum suuf 46 parcelles yu nga xam ne nii sa commune bu Tivaouane Peulh maire ba dañu ko convoqué maire bu Tivaouane Peulh dañu ko euh, convoqué sa division des investigations criminelles démb ñu ngi xaaral ndax tey dana uyu am déet moom maire bu Tivaouane Peulh hmm? mooy Pape Sow Euh, mais non non du Pape Sow maire bu euh, Thiawane Pël ay waaye sama xarit bi moo ma boole woon. ah Pape Sow fële la moo moo gagné Umar Sow. moo gagné Umar Sarr Sangal Kam la moo gagné Umar Gueye Umar Gueye waaw maire bu Thiawane Pël bi moom dafa rempilé. ah dafa rempli neen bi Tivaouane Pël dafa dafa dafa rempli moom boole woon naa kii. Euh, euh, euh, Tivaouane Pël dem la fa nekk ca coowum suuf. li si foncier dafa dafa xaw a bari nag. a bari. alors ñaari gendarme yi nga xam ne dañoo dañoo réer disparition des gendarmes Fulbert Sambou ak Didier Badji ay révélation yees am na ci ñaari officiers yi dañoo réer àjjuma samedi. ba léegi dañu demoon nee ñu nappi ji <coughs> dañu demoon nappi ji seen i jege wax fa dëgg nee ñu. Euh, tey jii dañ jàkkaarloo taskatu xibaar yi ngir wax ñoom it dañ ca xam ngir wax lañu sa xam vieux Omar Diatta mooy coordonnateur ba ñoom ñoom ñi nga xam ne ñoo jigéen ñaale nee na Fulbert Sambou mii Cap Manuel la dëkkoon la wax la dëkk ñu ngi ni est logé au Cap nee na nag ñoom ñi nga xam ne ku nekk ci ci ci dëkk Casamance yi xam nga ne ñoom dañu baaxoo di dem ci dex yi di nappi nee nag comme Cap Manuel la dëkk donc dem nappi ji mbégte la si moom moo tax mu ànd xaritam demoon nappi ji moom xëj na moom xam na am na information informations. vieux Omar Diatta mooy coordonnateur vieux Omar Diatta coordonnateur bi. coordonnateur lan les proches. Ah. tey jii dañuy def point de presse ñoom 15 heures xëy na dina ñëwaat ci nappi moom docteur Marie Xemes euh, dévoilé na ay chantier bi nga xam ne moom moo koy xaatu parce que ne liggéey ci ci budget bi nga xam ne moom la ñu ko nattal bi Papis Diop la tudd Papis voilà Papis Diop moom booloo nax ministre maanaam ministre député Souleymane Ndoye Eh, nee dama ko singali boobu temps yi correspondant laa woon di dóor yenn reportage yi rapport IGE ci l'affaire Prodac Mame Mbaye Niang nee na masul am rapport IGE jëm ci mbiru Prodac Ousmane Sonko kon nag wuy jël procureur ndax porte naa la plainte la nga wax dara mu ci Cheikh Ahmed Cissé présenté nañu ko dinañ ko présenté procureur tey ji ndax kàddu yoo mu yëkkati critique yéen kaay eh, dafa dikk ci Mame Mbaye Niang ba pare mi ngay defee Sonko nekk di nga andi ay ay ay ay ay loolu la waa euh, quotidien ñëw gestion domaine euh, communautaire Prodac yi coow li euh, tàmbali na diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye yegg naa si ci pandaw bi mhm. tâche yi nga xam ne moom la Yacine wax nañu ko yematle nee na jigéen ñi quarante sept heures la def semaine bu nekk ci biir kër gi liggéeyu kër gi te góor nag cinq heures lay def te loolu benn yoon nañu ko yematle liggéeyu biir kër gi daal nee nañ daal dafa war a yem ci diggante góor ak jigéen waaw am na sa ku ma envoyé message benn kilifa naan man wax na dëgg. ma defe ne lii baax lan lan lan liggéeyu kër gi. waaw liggéeyu kër gi nee nañ. góor ñee jigéen ñi dañ ci war a tolloo tolloole ci ay waxtu. lañ ko war a séddoo. maanaam lu dem ci togg meex bale meex euh, euh, nettoyer yeex. loolu loolu ki koy wax naka Jamra porte plainte comme Jamra moom bu gisee. lu normal day porte plainte waaw ku ne Jamra di si porte plainte. Jamra kay bu gisee li dana ci d'accord. d'accord na ko porte plainte. lan la moo tax ñu jigéen moom moo war a def tâche ménagère yi nekk ci kër gi yëpp. xale lu góor di tëdd di xoole. c'est-à-dire man am débat ak waa Jamra quoi ci ban kii lañ la ñu ah, yoo xamante ne affaire diine la de boo jàngul diine mënoo ci accuser nit ci fii ñu nii. affaire la lii nii tâche ménagère. <laughs> waaw ah. non dafa am liggéey bu nga xam ne peut-être dañu. affaire diine la dama dama jàng ci Ari Diallo xaw ma. waaw tâche boo xam ne c'est à la femme. mais loolu warul. man nga jàppale góor nga war a mën a jàppale sa soxla. man nga jàppale sa soxla. oui donc la sax nga koy def. Sénégal bu ngeen continuer yi dañuy xeebee ni suñu ni góor naa ëmb. ñu transformé affaire bi génne ko dugal ko mais loolu mënul nekk alaaji mais da leen jàppale am na ñu koy xalaat de am na réew yu koy commencé xalaat masculinité positive positive voilà loolu c'est dans ce sens positive esprit de complémentarité bi pour jàppalante rek mën nga jàppale sa jabar am benn problème waaye doo ko indi liggéey bi jabar yi nekkulee fii ngeen waaru mais nag gën a fës mais xam nga luy problème jàppale gi après lan lay indi exigence ñu fi bëgg a daganaa leem leemal rek dafa am liggéey yoo xam ne pour góor ñi la am liggéey yoo xam ne pour jigéen la yaa xaytuma laa <laughs> naa lem-lem gi dong la ci bëgg a daganal jigéen togg taaj ñu lekk mu neex ana góor togg taaj ah, ah li caaxaan waay bokkul ah, suñu culture loolu même boo écarté diine sax bokkul suñu culture caaxaan baaxul alaaj doo bàyyi loolu gis nga nag temps bi dafa dem de temps bi na de dëpp ba mu neex kay dèjà sax dañu tere sa doom ay ay xeet yooyu si biir yow ma ne Eh. waaye day dëgër ay caaxaan waay eh. mën nga jàppale na ngeen Mame Mbaye Niang dana yóbbu ci yoon Ousmane Sonko ndax Ousmane Sonko dañuy rapport IGE da koo taqal ci ñaar fukk ak juróom-ñeenti milliards Prodac yi indi woon cooya kalaame na ko te diwaanu Saint-Louis ñu wax ci jàkk ju màgg joojee nga xamante ni bi fi mu nekk nii daanaka fréquenté ko wóorul dinañ ci dellu soit wax itam Sénégal yi nekk ci Guinée équatoriale ñu ngi dund jafe-jafe yu doy waar carte séjour moo leen xaw a të te ba léegi suñu kilifa yi defaguñ ci benn jéego lu mooy loolu sport dañu ci ànd ak Baye Mante Mbuub yéen a kaay ci ci bundooye faram fàcce gi Mambey